asalaamaaleykum warahmatullah asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di siyaar mboolem képp koo xam yaa ngi topp sunu site bi di 94 Walfu Sénégal seen analyse chronique yi nga xam dañ leen koy defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di jaajëfal ñu ngi leen di siyaar way leen di Sénégal confrère de presse bi nga xam ne nii voilà conférence de presse bi nga xam ne ni waa Pastef ñu ngi koy def voilà ay ñoom El Malick Ndiaye waaw Ayib Defe xam nga Ayib Defe moom euh, jamonoy élection moom bu ñëwee day sonn daa mel ne parce que moom chaque jour saa su nekk moom la ñu dénku voilà ay discours nag wala ma ngay leeral wax dëgg yàlla ci euh, ñi nga xam ne nii dafay mel na chaque jour chaque élection rek dañuy am lu ñu ragalee Ousmane Sonko ba tax ñuy bëgg di yëkkati ay wax yoo xam ne ni voilà du wax yu kenn xam daal voilà xam nga euh, liñ naan bëgg-bëgg bañ bañ bañ bëgg xam nga Ousmane Sonko moom ala kulli alin comme nu ngeen mën a def waaye tey moom da ngeen léewtoo ak moom ci géew bi moom <laughs> moo tax ayib defe daal ma ngi leen di wala sànni ay xeer xam nag euh, campagne la ñu en tout cas daal euh, euh, ayib defe daal def na discours yu am solo seen liste yi voilà lu jëm ci liste yi ala ak ñi nga xam ne voilà. saa su nekk bokk nañ ci biir liste yi beneen bi ci des tamit moo di élection yi ñu jëm voilà dafa mel ni tamit gars yi nga xam ne nii Euh, ay mbër lañ war a dem ci géew bi maanaam daal boo xoolee dafa mel ni dañuy bëgg di contexte voilà dañuy bëgg daal chaque jour saa su nekk rek voilà élection yi am Ousmane Sonko du ci bokk mais ñi mel nag Ousmane Sonko moom élection yi nii moom ah lan ngeen mën a wax a wax ba du ci bokk man xaw ma ko moom lan ngeen mën a wax daal ba Ousmane Sonko du bokk ci élection député yi ah wax dëgg yàlla de dina ma jaaxal ay waay te ngeen a jàpp ci yàlla rek te xam ne moom lu jeex jeex na voilà xam nga euh, SONES bu yeew moom ah dëgg yàlla de day indi ay problème de SONES bu yeew dafay indi ay problème waaw parce que li problème bi mooy wax dëgg yàlla xale yi yeew nañ te dafatun te xam nañ li def bu baax a baax léegi kay ñeme ngeen bàyyi leen léegi fii amul permanence amul kenn ku ñu kale voilà kenn ku ci nekk rek voilà boo wóole sa bopp rek voilà aywa mais daal euh, faaw ngeen jéem a di génne yoo xam ne voilà loolu sénégalais yi mosuñu koo gëm ba ilaa yawmi diin tamit duñ ko mës a gëm voilà lu ngeen tegoon la rek ay ndëgg sërëx yoo xam ne voilà bëgg cee jaarale waa ji bëgg koo suul ci politique far yàlla nanguwut loolu la rek mais yooyu yëpp luñ fi créé woon teg long la voilà état ak ni ngeen ko jàppe woon ak ni ngeen jàppe noonu lay doxee non du noonu état mooy ki nga xam dafa ñëw di wax dëgg politique politicien dëgg mooy ki nga xam dafa ñëw di wax dëgg di ya di jaar ci yoonu jub ndax politique lu baax la mais nag ba ñu demee ba maanaam yi ñu war a wax muy ay dëgg euh, ñu di ko nëbb loolu moo indi problème moo tax politicien am voilà mais politique lu baax la ay nit ñu juba ko war a def voilà Ousmane Sonko nag daal leeral lu bari voilà xam nga Eto moom niñ ko jàppe woon ak <laughs> li am daal daa wuute moo tax daal bay woon ngeen sëgg bëre rek te muñ rek te xam ni réew mi moom ala kulli dina soppeeku ndax ndaw ñi ñoo bëgg euh, Sénégal soppeeku wax dëgg yàlla sonn nañ lool waaw lu ne daj nañ ko lu ne ñu ngi koy def waaye dara heure bi war naa fekk ndaw ñu baree bari am ay kër ak terrain gi ci aju am ay soxnaak yëpp macha allah kontaan